di wax ne peuple sénégalais yi ñi nga xam ne voté nañ liste Yewwi juum nañ ñun nag nangu nañ leen seen juum parce que juum te aayul mais juum ñaari yoon moo bon buñ juumati mukk ñoom bu ñu def campagne dañ doon wax ne coalition Yewwi Askan gi ak wàllu ñu ànd alors que ñoom ci seen bopp ñoom wàllu sax ànduñ wàllu ñaata candidat la amoon bu ñu demee élection ci euh, ci liste liste député yi bu ñuy bu ñuy euh, installé bureau assemblée nationale amuñoo ñaari député comment dirais je yooyu amuloon ñaari ñaari candidat wala am benn est ce que kon ñoom ànd bu ñu doon wax am na nax nañ Sénégalais yi nit nag suñu la naxee benn yoon naxaat la ñaari yoon booba yow war nga xoolal sa bopp na Sénégal xoolal seen bopp yéewi duñ ay nit xam nga lu leen ñor seen intérêt crypto personnel parce que Ahmed Aïdara chaque fois fii la doon reli di Sénégalais yi muy kàcc na xam ne day kàcc suul gas su ko teree xeeñ troisième année ko fiy tere la wax deuxième cumul de fonction warul am na démissionné moko doon wax moko doon Sénégalais dé moko Sénégalais di wax ne cumul de fonctions. waru am mom il est maire d'ailleurs même man xam gëmuñ ko dañ doon katch pour tromper Sénégalais mais gëmuñ ko parce que ñom ñep ay kat lañ duñ ay waxati dëgg ay controversé lañ xam parce que nak amul xam-xam ku amul xam-xam do am capacité de rétention d'information soo waxee lii suñu la ko laajee à la minute ngay wax leneen parce que amuñ organisation sur le plan intellectuel ils ne sont pas factuel lolo tax acte yi def assemblée nationale may wax jeunes yi ne duñ ay modèle tay duñ ay modèle modèle ëllëg te duñ mos a doon modèle parce que ay yefi golo ak ay yefi mbam kese lañ fa def golo moy gis lal nga lal ko ba mu mu ñëw tok ca tek ci ay tankam gis ngeen image yi waa APR tok nek ay ay nit yu respecté charte rew nit yu respecté constitution nit yu respecté loi organique assemblée nationale nit yu respecté institution ñom ñu mel ni ay golo ak ay mbam di def ay show comme ñu nek ci colonie de chaise bo xamantene dañu dañuy baptême comme ay golo yu ngénte di tebaka daanu des services spectacle boo xamante ça écorne l'image de la démocratie sénégalaise loolu tax su may dégg ñu ne ah, gendarmerie war ñu fa dugg mais qu'est-ce ñu bëgg soo amee ay imbéciles ak ay délinquants devant toi mais il faut force de l'ordre réunion. c'est normal Nous, nag damay wax sénégalais yi ne nañ leen bàyyi nañ vomir parce que ñooñu duñ ay modèle par rapport nag ak loi yi nga xam ne ñoom la ñu wax dañu posé loi parce que loi yooyu am nañ déjà homosexualité Omar yu mu wax na lu leer na tant que nous, sommes président wax na ko nga ministre dans dans l' di signer di signé di xol bu signé tant que président de la Sénégal du ko Sénégal nous bëgg ñu ne dañ ko indi wat indi c'est qu'ils disent parce que la loi existe déjà et la loi est est en toute vigueur aucune loi n'a été abrogée donc nañ bàyyi le Sénégal sommes combat troisième mandat le ñu deuxième quinquennat bu deuxième quinquennat Nous le Nous xam nañ ne ñun ci terrain le duñ gis xam sur tous les plans sur le plan politique sur le plan intellectuel sur le plan sur le euh, oh, le plan démocratique ak courage ak combat nous devons parce que combat lañ xam dañoo combat bo gagné nguur té fenuñ Sénégalais yi ñun lépp luñ proposé Sénégalais yi ñu ngi koy doxal on a commencé avec un programme yoonu yokkute soldé avec le PSE et le PSE ci 2e deuxième troisième axe président dañ ko wara a demay damay ñaan Sénégalais yi ngeen gunge président Macky Sall jàppale ko ñun nag dañuy défendre suñ deuxième quinquennat té président ñun waa COGECAR investir nañ ko déjà pour mon candidat en 2024